menyewat, menyewat, menyewat, menyuat menyuat menyuat menyuat menyuat kudugu nggak partage kudugu rek nga partage kudugu nggak partage nga partagé am nga sénégalais yéen dama yaakaar ne daf ci am ñoo xam ne ça va pas dama am sama benn waay mu dëkkoon nag héberger benn copain am bi am problème seen kër ñu nekk ci problème mu miraas waa ji saay bu ñëwee laaj ko conseil nan la wara taxawé ci sen problème mirage bi ndax sen kër nañu ko jox fu mu dëkk waye mën nañ ko sédd xaalis mu ne ko xëpp ci kaan yi arrangé la il faut nga am fo dëkk ndakate waa yemul ci mom day dem té conseil fenen donc li may nettali ni dafa lié ak problème bi ñu nekk nii mom day dem laaj conseil ñenen ñu waar ko muy seen tarixa yi rek tarixa yi fi nekk nii way yalla nee na nit ki lu mu la gën a nangam nga bàyyi koog yàlla yàlla dimbali la dina la jox lu ko gën lu mu la xañ dina la jox lu ko gën nangam nangam petit patata bàyyi li nga moom na nga def te yàlla tax na nga nangam nangam mu ñëwaat laajaat waa waaji wax ko la même chose mu ne ko yow seetlu naa affaire saa la laajee sama problème famille rek benn wax bi nga may wax quoi yow toujours da may wax loo xam ne daf may tàggale man ak samay mbokk mu ne ko waxuma lay tagale de dama la ne ni nga meuna def pour jot sa alal xep kaani rek bu laal xaalis xep kaani mu lank parce que lu ci meunte am après yow yaay assumer mu dem nak ba degg liko gaay wax mu dem famille bi jox ko xaalis mu dem jeli xaalisam wala comme degg na diine lu la yàlla xañ jox la gor gor lo touti di nga am nangam nangam sen tarixa yi rek liñ ñu leen di jangal jotna na dem na louer keureum xaalis bari na ci beutam jënd na ay affaire commencé na nek ci investissement am acca mi ngi fay location la vie est belle di dem di dem di dem di dem ba nattu ñew lamu doon liggéey doxut fay location yi problème yi commencé na aksi légui nak mënatul fay location xaalis ba jeex na neex-neex ba passé na mu wat ci waja ba mu démé ci waja ne ko dama am problème fuma dëkk ak nangam nangam est ce que di ma quelque temps ne ko la doon wax xëppal kaane nga jot li nga mom bul jël xaliss nee nga man dama lay ak sa wa kër tay metti na man mi la doon wax dila la ak sa wa kër ba tay maa ngi sama kër diko fay normal yow jot nga gisatuma la ay temps tay kan mo amat problème même yow ana sa wa kër ñi ngi ci jamm ana ñi la doon yedd amul ci kenn koy dem ba mu héberger la ci man nga ñew muy Sénégal dekk bi dëkku doomaraam la tay ben juge bu sante kayta malien bu duggé Sénégal doon na doomaraam gambien duggu senegal don na domaram guinéen duggu senegal don na domaram parce que dëkk bi lañu moñe moñu domaram waji def li tay laaj len ko wajjo ci sante ndjay te mu nekk États-Unis ñaata la ko joxone pour mu jëndal ko keur 150 millions mu ne ko duram waji porte ko plainte tay Macky Sall mom la jël tek ko dégg na nak wa Pastef yep nan yenn nit yi naan non Zizou Zizou Macky Sall tubaab bi nee na way loolu xañu ko mu nekk xañu ko mu nekk candidat APR dañoo am benn système bu ñuy doxee xaaral ma fay sama oto dañoo am benn système bu ñuy doxee ak yéen gis nga jalgati yoon jalgati yoon la rek ku xës ba jalgati yoon Aïssata Tall Sall bu leen fàtte moo fi taxawoon ne buñ demee ba toll ci mbirum candidature xam nañ nuñ koy defee tey nag waat na que ni réew mi dafa am ñoo xam ne tank yu fi doomi xaram amul ñoom duñu serinci sëriñ si tank ay sàcc amuñu ci réew mi ñoom duñu dund donc yëfi doomeram tank yaa ngi koy def ak tooñ am na ñoo xam ne ci loolu la ñuy dund parce que APR tey bu ma ci gisee ñenn ñiy bàkku tey li ngeen waroon a xam nga mooy lan man duma am sama mbër mu dem entraîner mbëru jàmbur entraîner ñu war a daje bëre may wane ne sama mbër jàmbaar la sama mbër dem sëriñ mbeur bi la setti serign ñu wara dem ci stade ba tok sama mbeur ne non nañ ko tibbal kaani jox ko ci loxom mu dem xep ko ci kanam mbeur bele door ko mu daanu ma diko bako dedet déedéet duñu fi gor mbeur nga yor da ngay faral ko xamne gor la day deggu taxaw APR yenn ne yeneen majorité ñewu len dem len ci election andi ngeen dossier aji sar baxut ngeen tok tay andi problème mambay bàyyi satch japp ko xamne ne nañ dafa difamé waye satch bi amna ken weddi wuko waxal na ko boppam ñëpp xam nañ ne sàcc la mu laaj ñaata ñaata million pour ñu fay ko sàcc bi nee na day dolliwaat xaalisam léegi nag yéen sénégalais yi dama leen di laaj dama leen di laaj ñoom 4 avril lañ jëm 4 avril dañoo war a génne ay armes dama leen di laaj diaspora bi li ñu fi dajale yëpp ci nemmeeku tuur ah dajale blende cotisation suba ngoon guddi bëccëg ba tey sénégalais yéen laay waxal de man moom xam naa ne àdduna du yàgg mukk muk mukk ba ma xëy ne ah dimbali leen ma fu ma dëkk biir Sénégal ma ñëw ngeen héberger ma dama bëgg a ñëw vacances ñaanal leen ma visa damay ñëw vacances jëndal leen ma sama benn ordinance dafa manqué. parce que ñu bari ci yéen booy wax ñu naan la wàcc sil gis nga fi tilim yéen la yow mi naan wàcc sil ak ki taxaw di xeex naan way xeex bi xaalis a koy def li ngeen yónnee doyut yéen bu ñu yónneetul jàppale wuñ len yenay joy ordonnance yenay joy am passeport yenay joy fan ngeen di jëlee visa yenay joy ku len jox invitation pour ngeen sétiko pour ngeen genn réew mi tay dama len di laaj lolu yëpp ngeen dajale ak lolu yëpp ñu dajalé ñu xey suba Macky Sall def ci lo xamné ni nii ko tegul dara ci yoon juge bi nefi ñi doon def lu bon yëpp tok fi nefi dama len di laaj ndax yeen da ngeen di tok seetaan ñu naxé len lan non sen candidat bi lolu xañu ko mu nekk candidat nangam nangam jall nañ étape bi dañuy xaar benen étape. muy lan étape fin bi biñ leen di rey Ousmane Sonko wax naa ak yéen côté bu nekk juge yi amul benn juge bu fi ñëw def fi yu bon ba pare wëlbatiku dem toog sa kër nekk ak sa waa kër jàmm tey Keita def na ko. malien boo xam ne tey waa Mali yaa ngay xeex waaye comme moom nekkatul pur original malien génnee nañ ko indi ko ci jaam yi les têtes brûlées andi ko ci maison des esclaves indi ko gore toog xaar yàlla doomaraam ji jël na jikko doomaraam yi fi mu toll nii def na jëfi doomaraam léegi nag yéen lay laaj yéen sénégalais loolu yëpp ngeen def rêve bi ngeen fi am génn bi parti parti dugg nemmeeku dugg fii génn fi ba ñu rey ci fukki xale ak nangam di jëbaaji ñooñu ñëpp ñu rey leen booy ñu fi rey yëpp dama leen di laaj ndax lii fi ngeen di yem waaw man moom pare naa ci moom man pare naa ci. actuellement nii may wax ak yéen tembe tembe Macky sal faalewu leen def na li muy def génn na réew mi dem na. fi mu toll nii 4 avril lay para ñi mu invité yépp ñu ngi jam ñaajo tëdd yéen waa jam ñaajo yéen waa barñi yéen waa tëngéej yéen waa Thiès yéen waa nangam-nangam lu ngeen di xaar ci gan yi ñëw toog foofu di leen xaar maire yi ñi mënta xeex génne leen bool ngeen tëgg tëgg leen palaat yi bu kenn am jàmm ci réew mi 4 avril Macky Sall bu mu fête 4 avril yéen a ngi koy bàyyi mi ngi def lu ko neex kan ma may woo kan ma may woo. def live dañ lay woo après live day yàqu léegi nak ci yeen la des yéen nag yéenay ñoo xam ne képp ko xamne yaangi yaa APR Macky Sall bu paré ci limuy def ci biir dëkk bi lay wëndeelu ko mbam mu dof ku ko neex mu japp ray sëriñ ci fi nek ñu te wax ne pat tok di jema roubé nan ku dem ci manifestation bo dé da nga xaru ta ñom kuy dem séti sen maam yi dé xaru wo billahi wallahi tallahi duñ len taxaw ci hôpital yu baax duñ leen taxawu ci njang mu baax duñ leen taxawu ci dara seen bop dong lañu fi nekkal legi nak rew ma ngok yag nañ leen ne xex bi bu ngeen xasse ba tambali bu leen arrêté ti tant que arrêté parce que APR da ngeen leen may temps bu ñuy def li ñuy def farba ngom ab gewel ab courtier mo taxaw di diriger rew mi numu ko nexé ak kan benn fecckat Marème Faye Sall ak kan Moussa Fall mo xamne taxawalu na taxawalu taxawalu ba euh, numu tuddu Ah, ah, ah, Côte d'Ivoire biiral fa benn dof Moussa Fall biiral fa benn dof moo taxaw défier armée yëpp taxaw défier police yëpp taxaw défier mari yëpp taxaw défier tarixa yëpp di rey ay doomu sénégalais ba pare mun taxaa toog di ko ñaanal yéen a ngoog nag réew maa ngoog comme ay dëmm ngeen léegi jeex na lekkante leen seen biir lekkante leen seen biir Pape Gueye yow sa saar gi laay wax Pape Gueye sa saar gi laay wax réew mi dafa am ñoo xam ne ay doomaraam lañ yoo xam ne yëfi doomaraam moo leen di dundal in faut nit di tooñ pour ñuy am jàmm tojoo sa cott ndey nga génn fii yéen nag laay waxal sénégalais yi mbir yaa ngoog yéen a ngoog mbir yaa ngoog yéen a ngoog yéen ay xool nu mu leen neexee ngeen doxalee ko noonu man moom pare naa ci ay laaj cotisation pare naa ci envoyé bu ma kenn envoyé te dara léegi nag xeex baa ngoog nañu xool ndax man su ma leen envoyé wul ngeen xeex ndax man daf may wàññi dara nak su ngeen amone jom tay juge bi du nelaw ci bir senegal mbay product du taxawal bir senegal elas Hadj du taxawal bir senegal amul ben membre responsable APR buy taxawal tay bir senegal 4 avril waruta am xex bi 4 avril waruta am Macky Sall waruta invité kenn ci bir rew tay genn na rew mi tal na rew mi dem na yonam 4 avril lay ñëw xoggalaku titeru def na yëfi xajam ba pare taxaw titeru sen kaw doomaraam bi bu ngeen pare ne da ngeen wor yene dem julli ci ngone da ngeen ni ndogu arrêté len koor gi ta ngeen Dakar nday Macky Sall na ñepp génn toj nday Macky Sall voilà na ñepp génn taxaw xex yeen top len sax bu yagge ñun suñu bakkan yi moy dess ci àll bi te jaru len ko wa salam